di fàttali it bala ma génn ci wet googu li wër jumaa ji ñi fiy ñëw daaw am na yu fi xew yoo xam ne indi na ay coow ndax nit ñi léegi yi xew internet yi da leen a fab bi dafa fab bi ñëpp ba dañuy dikk ba ci jumaa ji war a siyaare war a teewlu jumaa ji ku fi ñëw waroo sax seetlu ay caméra wala ngay wut ko la photo waroo koo tal dangaa war a am na ñoo xam ne bu masaan ku mel ne suñu affaire bu so fam daa siyaare sori na masaan ma kenn dawut sol eddaal ci dëkk bi bari na am na ci mag ñi ñoo xam ne bu ñu masaan daanaka fi xaw a toll korne si boobu amagut fa la ñu toll siyaare fa sëñ bi ngir warmaal ku baax ki kon dugg ba ci barabu Sëñ Tuubaa nag yor sa appareil di filmer maa ngi ci barabu Sëñ Tuubaa loolu ay teggin fekke fekkewu ko yi ci xewoon daaw ñëpp gis nañ ko waaye daayira mu xaddama xidma ay jàmbaar dëgg ñoo ci ne ndax ñoom bu nit ñi di màggal seeni kër yi toppatoo seeni gan ña fa bàyyi seenu njaboot ne ci jumaa ji kon ñooña ñëpp war na yoo xam seen taxawaay waaye na leen ci nit ñi jàppale ndax nit ñi itam da def junni yu baax def lenn ñoom te ñu fàtte lépp te doomu aadama du mat kon nit ñi nañ leen di jàppale ci kuñ gis xam ne col nga col gu jaaduwut walla mel nga melokaan wu jaaduwul ci war a ak soxla ñu fexe ba téye la wala ñu yóbbu nit ñoom ndax kenn nit wala junni nit mënuñoo saytu ay millions nit kon lool itam nit ñëpp ay xel ñi màggal si itam nañ gën a jox xorma jumaa ji xam ne fii jëm seen yaakaar yi àdduna ak alaaxira fa rek kon loolu itam ñu ngi ciy soññee bu baax a baax.